rapport avec sa conscience et en rapport avec la volonté du peuple sénégalais. Et j'ai interrogé les deux. Déjà, bi photo bi génnee gis ngeen comment ça a été accueilli par les Sénégalais. mu gën ma conforté ci idée bi ma mos a am ci sénégalais mooy danoo bëgg lu rafet danoo bëgg lu baax danoo bëgg surtout diggante yu nu naw toujours muy des toujours muy gën di consolider wu. et leen ciy gërëm bu baax a baax parce que Sénégal nag defar ko moom loo ci mën a dégg mooy àndandoo rek defar ko loo ci mën a dégg mooy rafetal. mu rafet rek bi photo bi génni gis naa au niveau national international comment le Sénégalais yi accueillir donc cette rencontre là di leen ci gërëm di leen ci sant bu baax a baax a baax et di leen wax ni donc bi ma toogee ak moom ñu waxtaan bu baax a baax waxtaan ci Sénégal bu baax a baax ma waxoon fii ni loolu moo tax ma duggoon ci coalition moo tax may dellu siwaat fii ci devant les Sénégalais ni comme waxtaan boobu am na à partir d'aujourd'hui j'ai décidé avec le parti et la coalition de me désister de la coalition Sàmm Sa Kàddu et et et et et et et et di engager di engager tout le parti toute la coalition tous les sympathisants ñoom ñëpp fu nu mën a ne ça peut être douloureux pour certains ça peut être très douloureux pour certains parce que xam naa ni jotoon nañu sore ci biir comme pour man mii d'ailleurs mais di leen engagé fépp fu ñu mën a ne à faire une translation vers les comités électoraux yi nga xam ni Pastef taxawal na ko mais également engagé engagé le combat pour une large majorité diggante bi ma xam ni gisuma ak Ousmane waxtaanuñu xam ngeen ni taxawal nañu coalition taxawal nañu intercoalition yooyu yëpp joué naa ci ay rôle mais ku xam na may doxee xam nga ni benn jamono am na gêne bu ma habité te gêne boobu li koy indi du dara lu dul respect bi ma am ci ñu ma nekkal mais également respect bi ma am ci sama conscience parce que daa dem ci mbir ba ci biir sentir gi loolu c'est intérieur sentir ni quelque part am na lu lay gêner pour nga mën a ñëw taxaw